ينور الغالي إلى من ci ndigalal cheikh mouhamadul muntaxa basiru mbàkke xalif général kulu murit sëriñ abo mouhamad xalifatul cheikh mouhamadul mamoun mooy ànd ak njabootug maam cheikh anta mbàkke gépp ak njabootug maam sëriñ afiya mbàkke naka noonu képp ku sëtoo ci maam anta ndiaye di jottali ay cantam ak ngërëmam mbooleem julit yéeg taalibe yi ci seen taxawaay bu rafet ak teewaay bu kawe njort ci ubbiteg jumaa yi daaru salaam gi sëriñ abo mouhamad dellu nag di àndaat nag ak njaboot yépp di fàttali mbokk julit yi mbokki taalibe yi bis bu mag bis bu rëy bis bu lislaam amee ndam lu mag di bis bi sëriñ tuubaa dellu ci liggéeyub géej gi ëndaale sëricaam bu mag bi tànn këram gi gën a mag ci këram muy daaru salaam wàcce fa sërica boobee fekk fay taalibeem bu mag ba xaritam mbokk ma cheikh sidil moktaax maam cheikh anta borom daaru salaam mu ganale ko it ganale gu rëy ganale gu taarix dul fàtte bu mukk sëriñ abo di ànd nag ak mbooleem njaboot gi di ci woo mbokki jullit yépp mbokki taalibe yi ak sunu mbokki bopp yu nu bokkal sëriñ touba di ci woo mbooleem këri diine yu sénégal naka noonu autorité yu sénégal di ci jiital son excellence monsieur Macky Sall président de la république màggal gi juróom-ñetti fan ci juin 2023 lay doon dëppoo fukki fan ak juróom-ñeent ci diggi tabaski ñu fas ko yéene amalee nañ ko daan defee ak njàngum kaamil yuñ doon gàttandoo bëccëg gi di ko tàmbali dimanche ñeenti fan ci weeru juin 2023 ñu ngi ci woo mbooleem daaray alxuraanul karim yi dimanche ñeenti fan ci weeru juin ci guddi ga dinañ amal waxtaan wu am solo ca kër cheikh mouhamadul maamoun jëm ci taxawaayub sëriñ Touba ci bennle julit yi